ci feeñal ko wan leen sax ci ndigalal Khalifa Sall koo xamante ni mooy ingénieur bi concevoiroon maquette bi ñu ci def bi mu ci waxtaanee ñu xam ni kon ñun liñ ci mën a def comme ñoom am nañu fii ba décembre lañu ñu jàpp àpp mën koo door kon nañu investir li jëm ci wàllu cet mu jëm ci feeñal sunu yéene kilifa tabarakallahu ci ndigalal xalifa bi tey nga ñëw fekke si ko wane ni Serigne Babacar Sy dox na ci allée yii Serigne Babacar Sy na ci allée yii Serigne Babacar Sy nangu na liggéeyu njabootam gu nawe gi ci cofeel gi ñu ëmm ci moom ba tax ñu investir bis bi sag feeñ ci jataay bi lii taxu la woon jóg waaye ci li la tax a jóg la bokk fa tabarakallahu si ñu di la bége di la na la yàlla may ca sa wetu mag ju tedd jële di Cheikh Seydi Aboubacar Sy sa mag sa mag ju tedd ja Seydi Haj Malick yàlla may la nga yéggale mébétu maam El Hadj Abdoul Aziz ca la nga taxawee ca Tiwaawan te ñun ñëpp ñu tekki suñu bët laylan wa masaan laylan wa nahaaran yaa ngi ci service su kër Seydi Hadji Malick yaa ngi liggéey di fësal nag li Maodo gënoon a bëgg mu di daara di juble di digle di taxaw te fu ñu la fekk benn melokaan rek doo soppiku benn yoon nii nga mel dem ak ñaat léegi yal la yàlla fay te taxaw la te jàpp leen ñu am mbégte lool sant nag ñi fi rot fi gannaaw mairie bu Dakar Khalifa Sall ñëw na fi ci suba ba mu fi jógee Diouf Sarr bi nga xamante ni moo yore la santé woo na xale yi recevoir leen ànd ak nun ci nii tabarakallahu jàll ci mairie bu Sicap bi Cheikh Gueye sant an DG wu port Aboubacar sa ndeef bi ñoom ñëpp kenn ku ci ne da yàkkam ci ñëw ñëw def ci bokk ci ànd ak nun liggéey bi ndax xam nañu sëriñ Babacar ci ku laal ci mbirum dootoo ko rëccu da kawe di kawe ba ca jofaxtan waaye ku néewal mbiram da ngay wàññiku di wàññiku ba boo moytuwul ñëpp a lay yàlla mënu ci yàlla musal ma occasionné nag ndokkeel fédération Dakar ci gannaaw daayiratul kiram bii nga xamante ni Baye Mansour Diagne Baye Mafali Diop Baye Khalifa Ndoye ñoo àndandoo ak daayira yi séq fédération bi Dakar ak banliyaam tabarakallahu mouvement de jeunesse yi daayiratul moustarchidine ñu ngi wax léegi ni Mourchid TV mu ngi fi daayiratul muxtafina bi athaaril aba wal ajdad daayiratul niamati soxna Umu Kalsum Mbay daayiratul rahmati fa tabarakallah ba yegg si ci action daara ji sëriñ Habib njabootu Serigne Mansour da koy jàppale ca tarbiya ba ñëw ci njabootu Seydi Jamil union yi nekk Fass ak li ko wër Grand Dakar fa tabarakallah ñoom ñëpp fédération Serigne Maodo Sy ñoom ñëpp àndandoo nañu pour investir allé yi nga xamante ni ki ñu ko duppee moo tax kenn du ko néemal bi muy ñëw dafa am su mu waroon a dem waaye naka lañ ko ko wax ñëw na fekke si ko ndax xam na ni mooy borom te cër bii nag Serigne Abdoul Aziz moo ko ko joxoon moom mii fii ci Dakar ànd koog njaboot gii wan leen ni ngeen ma gisatul mën ngeen a jàpp ci kii di Serigne Babacar Sy Aziz yàlla na gën a yàgg yàlla na gën a sax ba bëgg nag occasionné woowaat njaboot ci mbir moo xamante ni fan yu néew nañu fi polémique njabootu Tiwaawan ñu koy wax Ibrahima Ndaw Badiane noo bokk sababu tarbiya daayiratul muxtasina la bokk taxawaay yi mu wax wax ko ci xaqu kilifa yi ku xam ku kër gi yar ak ku xam ku yaroo ci kër gi xam nga ni bokkuñu damay occasionné ci kanamam xam naa sax du ko waaye damay occasionné ci kanamam ndax dafa am loo xamante ni bu amee ñun lañ koy joxe te nun yëgunu ndax nu nit danoo nangu ku ñu nen danoo nangu ci waawan nen danoo nangu kilifa yi danoo nangu ñu doon noonu seen jaam ñoom ñu doon suñuy buur bu leen neexee takk nu fas tukkal ba fu leen ne loolu la yàlla dogal te ku nanguwul am kilifa Serigne Babacar Sy nii dafa waxoon ku nanguwul am kilifa jinne di sa kilifa kon su yàlla dogalee mu bokk ci njaboot Serigne Babacar waaye nanguwul parce que nanguwul nee na nanguwuma Tiwaawan nen na nanguwuma Tiwaawan moom na nun danoo nangu Tiwaawan nen na nangu Tiwaawan moom na ka yàlla dogal tey muy kilifa ga di Seydi Aboubacar si Mouhamadul Mansour moom la def sunu kilifa bu nu nangoo mooy sunu kilifa bu nu nanguwul mooy sunu kilifa kon si yàlla dogalee occasion bi mooy première occasion bu ma sàkku lii sax taxuma woon a jóg waaye mu waxin waxin boo ni taalibe du ko wax ci xàqu sëriñam waxin wax wa irresponsable xaw a manqué de respect Tiwaawan xaw a doyadi moom sax moo doyadi ndax Tiwaawan du doyadi ma ci sa kanam laa koy waxe ñu xam ni nun kat boobu boobu wàll laale wuñu nun li nu laale mooy nangoo am kilifa yem ci li ñu teg muy sunu sababu tarbiya sunu kilifa Cheikh Abdoul Aziz loolu la bàyyi woon man mii ak Cheikh Tidiane mii ak Soxna Astou mii rawatina Serigne Babacar Sy mii di sunu mag ñu àndandoo ko wax ko pour que mu nekk lu nuy jël nun muy sunu fullay bopp bu nu kenn bu nu kenn néewalal sunu kilifa yi. bu nu kenn néewalal Tiwaawan bu kenn néewalal kii nga xamante ni tey mooy le chef suprême de la confrérie di Seydi Aboubacar Sy Mouhamadou Mansour sunu ko defee bàyyi nañu sunu masuuliyaat te bàyyi sa masuuliyaat mënatoo nekk responsable ci sa wetu moo tax kenn santuma ma wax lii man maa jëlal sama basket bu bopp parce que ñu bëri dañ ma interpellé ci semaine yi ñu génn waaw waaw yéen lu ngeen di wax ah waaw moom day bu waxee yow lay tudd te nee na yow yaay ki ko nen man nenu ko nekk Tiwaawan xam nañ ni nenu ko maak moom yëpp dañ ñoo bokkoon nen man ma nangu sama wàll moom mu lànk ko sam asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf jërëjëf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 alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di ñaan ngeen dal Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dafay wax ne lu amul seede baaxul alquran wax ne wala taktumu shahada wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu wallahu bima taamaluuna alim ah, sëriñ bi ñu ngi jégalu yëkkati kàddu te ñaane ñu ndigal wante ndigal wante ndigal waxal waxal tabarakallahu amee nañ ko ca xadara non non boobu mi ngi si suuf ci sama juróom benni at laa dugg ci awa daf ñu dénk ma daara yi Serigne Babacar Sy ma yor ko ay at di fa jàngale Serigne Moustapha bi may ñëw ñoo daan bokk benn mat la ndax Serigne Abdou dafa amoon ñeewante ci man bëggul woon ma teel a ci daara ji ma nekk Cheikh xam ñuy fawandoo ba soxna Zeynabu moo ma gis may yéeg ci ngooñ yi di wàcc mu jàpp ci sama loxo ñëw dalal ma yàlla dogal jëmm ji mu tudd bi muy ñëw fa la ma fekk jóge Saalum jàngewul Tiwaawan dafa motilisee alwa ñun nag Tiwaawan moo ñun nen yar ñu moo tax lu jiitu may génn ca daara laa wax ne Tiwaawoonu inni faxuurun biki li anni taracractu fi ardiki fa kungeelu asli walakinani radactu lhidaayata min fadiki ma nekk lu ndaw def benn laamiye ci Tiwaawoon yóbbul ko Sëriñ Mansour borom daara jox ko Pape ngir bañ ngistal Sëriñ Mansour liir ko ne Pape Faye mu ne ko Cheikh Ahmed Tidiane mu ne demal nga wax ko ne ko ku am ku def lu am solo daf ko war a wax ci mbooloo mu am solo bàyyil ba daayira yi daje nga woo ko mu ñëw jàng xasida bi xasida bi toog nag sëñ Maodo ci dëju sëñ Moustapha Sy Jamil boobu yàgg na nit ñi di jaal ba ma yegsi ci sëñ Mansour nuyu ko mu téye sama loxo ne Maodo mu ne ko mu ne ko gone gi def na xasida boo xam ne ilham la sëñ Maodo invité añ nga jàngal ma ko sëriñ bi xasida boobu danaa ko jàng ci seen kanam yanaaku inni fitti waawu ni naahilu siiri fa fiiha lil garibi manahilu manahilu yanaaku inni fitti waawu ni naahilu siiri fa fiiha lil garibi manahibu